وهو رحيم هذا لي أمان الحمد لله على الكتاب مع سفين مسلم الختاب سيدنا محمد خير الوراء من قال لي خدمته وسورا ثم صلاة الله وسلامه على الذي مني له الأقلام سيدنا سفين المقدم هند الذي تسكو لدي قدمي محمد وسيلتي وجنتي أن الهادي ولزا وجنتي والي وسائب الأبرار في الآل والمال بالتكرار أزا وخزي خدمة تقر هين النبي بي كما تبر نويت من سلامي خدمة تسر مصطفى في تبيت معسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمه